Euh, tey nag lu ñu lu tax ñu nekk fii moo di dañu lëkkaloog ak euh, garage euh, Médina Baye ñas lëkkaloo boobu daf ñuy day may sunu xale yi nga xam ni dañ leen di tàggat di tàggat bu leen di tàggat bi mooy tàggat buy boole di jéemtu ci bërëbu liggéeyukaay yi pour mën a am xarañ buy tax su suñu génnee rek du am dara lu leen di wutee ak ki nga xam ne liggéeykat la bu xarañ boo bëggee ñëw ISEP Diamniadio li nga xam ne moo ñun moo nu jëkk euh, euh, soxal mooy xale bi ci boppam mu am bëgg-bëgg ni man métier bii laa bëgg def soo amee bëgg-bëgg ni métier bii laa bëgg def lu tubaab di wax motivation yi boo ko amee

rawatina ci xale yu góor yi ak yu jigéen ñi mais rawatina ci pour faire jigéen ñi mën a xam ne dañu toll ci jamono yi am métier ñoom métier ci oto métier ci lépp te loolu dafa am solo am solo boo xamante ne bii bu ñu ko defee dina tax suñu réew mi gën a dem ci kanam euh, xale yi nga xamante ne bii góor ak jigéen daanaka boo xoolee lu ma ëpp téeméer yi xale ak yu lu topp bi ñu commencé ak léegi ñëw nañ fa di gëstu nga xam ne fa la ñuy ñëw 8 heures ci suba nekk fa ba 16 heures di gëstu ci li nga xamante ne bii moom la ñuy liggéey ñun aussi ñu leen di jox ñuy pratiquer carrément bu wàcce moteur jotee ñu wàcce bu liggéey ci climatisation jotee ñu bu def bu peinture jotee ñu bàyyi leen ñu poncel seen bopp dugg ci cabine de peinture bi xam nan la ñuy defee jox leen même jël responsabilité jox leen même ay pistolet de peinture di leen wan pour que rek ñu xale yooyu mën a gëm ne attention ñun kat ndekete on un plus parce que am tay bac amna lo On li buñ ko dolé buñ ko isek défalé nguur gi défal ñun buñ ko ci donc suñu réew ñun nañ ko yobbu pour sore